liir bi ñu ne woon nag dafa faatu ba tax ñu yóbbu ko ca morgue ba doon ko fa denc nag eh, fekk faatuwul ñi yoro morgue ba nag ñoo ko xool gis ni mi ngi nooyi ndekete ñu daal di koy eh, indiwaat loolee nag eh, metti na way juróom bu góor bu baax a baax ndax nee na nag fi mu ne nii xale bi loolu yi ko daal nag metti la ci moom ña nga xam ne nag ñoom ñoo yor hôpital ba nee nañu bi mu juddoo dafa amoon ay jafe-jafe ci wàllu bopp bi ak ci wàllu ni muy noyee looloo taxoon ñu jàpp ni faatu na waaye am na rapport boo xam ne sax génnee nañ ko ci ngir xamle li xew ni mu xewee Pape mbay Diaw. Alassane Sow du gaaw a fàtte bisu siimee ci hôpital El Hadji Ibrahima bu bu Kaolack doomam ji nga xamante ne nag semaine la am ak lu topp tanu hospitalisé woon ko moom la ne woon dafa génn àdduna ba nu yóbbu ko ca morgue hôpital ba ñoom nag bi ñëwee foofu ci leen gis ne xale bi ba léegi mi ngi nokki waajuru xale bi nag di naqarlu mbir mi ndaxte moom nee na demal na ban jox ko certificat de décès bi. fekk ma toog tuuti mu bind benn kayit bu ndaw mu jox ma ñu ne ma léegi boo bi jëm ko seetee ay mu ñëw leen seen koor mu ngi nii mu xool fekke moom la ubbi carton xool xale bi ma gis moom mu ngi noy ma laa ci dox ñu yuuxu ñetti yoon ba ñëw fa na fekk benn docteur ñu ko koy ñu ne ko lu ngeen bi ñàkkee ma teggin ay matuwaay daal dinañ koy jël ñi nga xamante ni ñoo laale woon ci mbir mi ñoom ñëpp daal di nañ leen di déglu ba am na benn rapport boo xamante ni jébbal nañ ko ñuy yore waa hôpital bi li ci war nag lépp dinañ ko def buñ sukkandikoo ci docteur Kalidou Ly. bi ñu koy hospitalisé mu ngi am benn hic bébé la boo xamante ne amoon na jafe-jafe aussi ci wàllu wàllu complication cérébrale ndax aide infirmière bi moom moo gis ne xale bi nooyeetul rek mu yaakaar ne dafa dee fekk xale bi nag feebar bi mu feebar moo bindoo xew su amee di nga raaj responsable